leen nee na kaay leen wuyu jëmu doon kaay leen jël la Baay Faal yi ku Baay Faal bu muntu ñàkk bu ne kaay leen jël jugal dem jëli waaye sëñ bi kat yorul lu muy maye yorul lu muy able yorul lu muy saraxe lu muy jaay la yor lim ñuy jaay nag ku ko jënd ka koy jënd mooy ko def nii ngeen def yéen Baay Faal yi mu wax ñu ak bëggam ñu jëfe ko buñ ko defee rek def lan lan bëggoon jënd ngeen lan lan bëgg ñun liggéey bi moom ku ne xam na ni sedd na xolu borom sedd na xolu borom ndax dibéer lañ ko tàmbali ba tey jii di alxames nun kat yéewi ko wunu dan ñoo yéewi bu leen waxoon ni bu leen dellu fii ñu nekk moo nu gën a fa nu jëm ndax fa nu jëm xamuñu leen fay fekk coono kese rek leen fay fekki ak nelawi kese te loolu du am benn njëriñ ne lii njëriñ ci murit la sëriñ bi bëgg daal waxtu wu ne mënu cay ne kon nag mi ngi ñaan suñu borom mu dimbali nu man loolu ni sëriñ bi bëgg lépp ca saxal ñu ci ca musal ñu ci lépp lu ñuy lor sa borom miy jéggale nag ñoo ngi ñaan mu jéggal jullit yëpp ci saayir ak ci baatin guddal suñ far yi nag bu baax a baax a baax saxal ñu ci ndigalu Serigne Touba li faw ci musal ci ndog yëpp loolu daal bokk na ci kàddu yi nga xam ni maam Cheikh Ibrahima Fall Serigne Cheikh Jëmb Fall neewoon na nan ko waxal murid yëpp mi ngi yeesal nag ak njëbbalam ci Cheikh Mountakha ak njabootu Cheikh Ibrahima Fall gépp mi ngi yeesal ak taalibeem yeesal ak njëbbalam di fas a xam ni fa maamam ji nekkoon rek foofu lay nekk ànd koog rakkam yi ak murit yëpp kon nag sëriñ bi sëñ Cheikh Jëmb Fall nee na mi ngi jottali ay cantam ci Cheikh Mountakha Mbacké Xaadimu Rasuul di ko ñaanal nag mu yàgg fi lool tànd ko wér ba lim yéene liggéeyal waajuram wa yéene koo liggéeyal maamam ja maamam ji di ko ci liggéeyloo yàlla na ko defee nu kawe njortam te ànd koog murit yëpp nee mi nga sant bu baax nak te geureum bu baax a baax ginnaaw kàddu yooyu nag moom ñun Baye fali sun yaakar yaakaar yëpp ne ci Cheikh Ibra Fall Serigne Cheikh Jëmba Fall neena bu suba ci aljuma ji dafa bëgg ñu xey dem ngabu gobali ko tolam ya kon nak ku yaakar Cheikh Ibra Fall ndigal la ngok neena ñaari baat lay lay fàttali yoo sëriñ Abdou Lahad dafa àndoon ak sëriñ Moustapha Bassirou. dañu faa àndoon. dañu faa àndoon. sëriñ Moustapha Bassirou. sëriñ Moustapha Bassirou. njabootam gépp la àndaloon. njabootam gépp la àndaloon. doon yóbbu addiyam. ci yokku jumaa ji. te nam doon dajalee addiya ji. doon dajalee addiya ji. mu sonnoon ca lool. ca lool. daanaka noor ca. daanaka noor ba ñu yóbbu ba sëriñ Abdoulaye di ñaari baat la ko wax. ñaari baat la wax sëriñ Moustapha. ne ko dama lay ñaanal ñaari mbir rek. ne ko dama lay ñaanal ñaari mbir rek. loo yóotu na nga ko jot. loo yóotu na ko jot. loo daw na loo ko raw. loo daw na nga ko raw amiin. loolu lay fasal taalibe yi. sëñ see Cheikh Basirou. sëñ Cheikh Mbacke Abdou Latif nee loolu lay fasal taalibe yi. ñun ñëpp nan nekk ca biir loola. ñun ñëpp nan nekk ca biir loola. nan ñu fàggul loola. nan waaye maa ngi ciy fàggu itam. mi ngi ciy fàggu itam. di ko ñaan. di ko ñaan. ñan fi dajawaat na gën si déwén. yow mii nga ñëw yeewi si waat ñu. sëriñ Muntaxa di nu nekk foofee mu gën a yombaat gën a rafet gën a neex tam doon ay déwén yu bare bari jërëjëf Mbàkke di sant sëriñ Cheikh jëmb ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha ndax ndigali bi ñu ko yëkkatee wax ko ko mu waxaat ko sëriñ Cheikh Mbàkke mu dem ba ca moom eh, sëriñ bi xolam sedd na ci xam na ni fa mu nekk loolu rek moo ko fa bàyyi kon ñu ngi koy sant bu baax sëriñ bi nee mi ngi koy ñaanal mu gën fee yàgg lool gën a dolli ak wéram ba lim bëgg a liggéeyal maamam ba ko liggéey sëñ Tuubaa ànd ko rakkam yëpp ak doomam yëpp yàlla na ko ci suñu borom doole dimbali ba lépp mu mottali ko ak mboolem rakkam yi fi teew nag nee nee bu tuddee sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng mii rek yóbbaale mboolem rakk ju fi teew. teg nuyoo bi nag ci loxo sëriñ Falilou mi nga xam ne mooy jëwriñam nee ma wax ci turam léegi moom itam sëñ Fallu sa taxawaay ñëpp xam nan ko na sa waajuroo meloon rek noona nga mel de soppi woo ca dara yàgg sa rakk yëpp topp ndigal déggal say kilifa seey ci seen biir kon yàlla na ci yàlla gën a dimbali li ngay ñaan waxtu wu ne yàlla na la ko sëriñ Tuubaa defal mooy nga jékku ndigal li xam na ni mooy sa yitte liggéey bii nag sëriñ Muntaxa xolam sedd na ci de waaye nag taw feex la ci ñun joo xam ni ku xam cosaanul dëkk bi nag ba ko sëriñ bi sos ak la ci seen maam ja defoon loolu mooy lii rek moo tax lu ngeen jiitu rek ndam rek a cay mën a am lépp lu sëriñ Tuubaa bëgg ca sant ko Cheikh Ibra Fall nam ko bëggee ni la koy amee loolu moom dara mënu ko dindi ci àdduna ba àddunay tukki kon nag ku am tawféex yàlla dimbali la ba nga bokk ci liggéey bi war ngaa sant yàlla yéen nag taalibe yëpp la ñuy sant ndax da ngeen di jëwriñ ji waaye ñëpp lañ sant nag waaye nag Cheikh Ibra Fall daa jiitu jiitu nag. jëwriñ boo ko doonee boo doxee rek ñëpp dox waaye lii wane la lu bëree bari ndax dëkkub Touba di mu rëyee kenn xamul lu mu toll. boo tàmbalee woon fa dëkk bi tàmbalee ba fa muy jeexee mën ngaa dox lu mat waxtu te doo jeexal dëkk bi ku ko mën a liggéey ci ñetti fan kon waree ne Serigne Touba dara tëwu ko lépp lu Serigne bi santaane. taalibe yi loolu moo leen ñor ñun Baay Faal yi nag dañoo am dimbal ak tawféex Cheikh Mouhamadou Mountakha mas na koo seereel de mooy bi ñuy ubbi kër gi ci ndigalu Cheikh Sidil Mokhtar mu ni man de li ma gën a yéem ci yéen booba ci biir oto bi la ko waxee yéen de da ngeen a sax ci liggéey sëriñ bi ba mbubb sax tëlu leen ko sol kër gu rafet it tëlu leen ko. kon yéen nag kuy nattali seen kër kuy nattali seen biir da leen di dégg ci biti te jonjowul ak yéen waaye li ngeen di daj ak li ngeen di dund amatul sax ci kaw suuf ndax nit ku jaay léppam ndax nit eh, dina joxe leen nam lennam téye lennam waaye seen lépp ngeen joxe yéen Baay Faal yi jëme ko ëllëg nag. loolu nag pastef bu wóor ak pàgguteef bu wóor bu leen seen maam ja fàgguloon ci liggéeyam Serigne Touba bi loolu moo leen ko may kon nag Serigne baa ngi leen di sant ba baax te xam ne itam képp ku fi indaale yitte soo ci amee pastef na nga ko bëggee ni nga koy amee ndax wóor na ko ni liggéey bi ku ci ñëw rek te am ci pastef am nga ci defarug àdduna ak àllaaxira lii sëriñ Cheikh doon wax léegi nag seen maam dinañ ko fàggul fàgguwaale ko taalibi yëpp ñun dañoo nekk ci biir ñaan ko nangu nekk ci biir aajo ju faju moo tax nag nee lu manqué ci ñun rek ci pëste bi la waaye sëñ moom lam mënoon tey jii la ko gën a man sëñ Amsadu Jaxate daana ko wax daana wax ni kuy sikki sàkk ni sëriñ bi nekkatu fi lu tolni ni wilaya wilaaya nekkul ci yow le sëñ Bamba manon tay jële ko gëna man lam daan def tey la ko gëna a def yoon it moko ko bopam yoonu ken nekku ci kenn mënu ko yak ken mënu ko gàllankoor kenn mënu koo sikkal saa soo si ko yëkkatee bis boobe le pësif yi gëna yokku ci la dogu gi gëna yokku loolu suñu yoon nekku ci sëñ tubaa ko fàggul boppam kon na sunu xel dal ba baax ten yaakaar sëñ tubaa jël suñu lépp jox ko te bañ cee boole dara buñ ko defee rek liñ bëgg dana yomb luñ ragal yàlla dinañ ci musal lii fi xew bu yàggul rek nee na firnde la ci bu ngeen xoolee bi Cheikh Mouhamadou Mountakha ñaani ñu ubbi jumaa ji bin ko ubbee daanaka wérdi gi ci wàññeeku ci réew mi màggal Tuubaa gi jege muy gën a wàññeeku kon loolu ku ko gisul say bët moo neexul moo tax nee na sunum xel dal ba baax lam ñu waxoon ca màggal ga rek lay fàttaliwaat ku ci sa pëstef dëggu dina la wóor ni sëñ Tuubaa dina dox sa diggante ak mbas mi te am ci lu amu ci lenn lu muy si sàkka tuddoon ne kum tuddoon ne ca sa bakkan di yem. sag dogu ci Sëriñ Tuuba. ak sa pëseef. daa war a àgg ci. daa war a àgg ci. mu wóor na ni moo gën ci yow. bu ne boo faatoo àjjana nga jëm. te gëmul ne kenn dina ci sax ni kenn dina ci faatu. ndax loolu Sëriñ Tuuba ko fàggu. suñu yoon nekku ci. kon nee mi nga sant bu baax. di ñaan ci barkeb Sëriñ Tuuba. aaji ju fa waay indaale nag murid yal na ko yàlla sax borom saafara wirdu gu fi am murid indaale woon yàlla tàggoog moom bis nekk tey bu dee ay xéwal itam yàlla yomb lool ci ñun murid yi lépp sëñ Tuubaa fàggal nañu ko nee nee li mu koy jeexale nag sëriñ Fallilu ndigal lim la doon waxaat léegi ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha ndax sëriñ bi fam nekk dafa sori nee na moom léppam sëriñ Tuubaa la ne lu ngeen gis mu koy def ci wattandiku day wone aw yoon loolu képp la ci jublu waaye xam ne ni ñëpp xam nañ ko sëriñ bi amul nu muy bëgg wala amul lu muy ragal waaye day wone aw yoon te noonu it la ko ku baax ki daan defee looloo waral su wootee màggal gi. dégg na ni mu ko waxee ngir sàmmonte ak àdduna moo digaloon taalibe yi masque yi ñu indaale ko nit ñi it ndigalu Sëñ Tuubaa yi rek la ñuy déglu indi na ko indi nañ ko ba indi indi ko loo xam ni ne ñoom sax jugal na leen kaw nee amatul fu ñu def masque yi ci ndigalu Cheikh Mouhamadul Mountakha nag mu tegaat ko ci seen loxo. ngir xam ni yéen bu ko tegee ci seen loxo dana egg ci njaboot gépp dina egg ci jullit yëpp dina egg ci taalibe yëpp dina egg it ci kër yëpp ndax nee ni mu ko bëggee rek noonu ngeen koy defee kon nee mi ngi sant bu baax a baax wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu